أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن tey jii destination bu université professeur Iba Der Thiam bu Thiès kokki la woon ci njiitalal ma dokki Maguette Diop nekk enseignant chercheur foofee ca université ba ànd ak mbooloo ginnaaw bi mu amee ordre de mission ngir jéem a xamanteeg daara bu kokki waaye tamit jéem a taxawal ay jëflante seen diggante. maa ngi tudd professeur Madoki Maguette Diop médecin interniste la léegi maa yore euh, responsabilité sociale bureau des études et de service à la communauté. de service à la société bu université Iba Der Thiam de Thiès maa ngi ñëwoon fii daaray Koki pour entrer en contact ak euh, comité bu daara bi maa ngi ànd ak sama naataango docteur Idrissa Wade moom agronome la ñu doon xool nan la ñu mun a collaborer ak daara ji pour jàppale leen dans le cadre de service à la communauté. ñoom nag bi ñu agsee ci daara ji mbégte la ñu am ci dalal gi ñu leen dalal waaye tamit ni ñu fekkee daara ji ci structure ak organisation bu mucc ay impression bu très satisfaisante la une très très bonne impression d'ailleurs euh, mun naa mun naa la wax ni ni ma foogeewoon daara ji ak ni ma ko fekkee vraiment jéggi na dayoo parce que dafa ma dafa foogoon naa ni daara ji magewuloon nii te structuré wuloon nii mais. dafa mel ni université ba ma jógee ak fi ma ñëw ni tam même chose la comme université de Thiès la. bokk na nag ci li tukkee ci ndaje mi ñu doon amal seen diggante ak kilifa daara ji jéem a xool nees def ngir mën a amal benn partenariat ci diggante daara ji ak université bu Thiès waaye itam jéem a xool nees def ngir mën a jàppalante ci wàllu mbay wàllu wér gu ak lépp loo xam ne dafa jëm ci énergie solaire waaye itam ci formation. objectif visite bi mooy xool ñun. universitaires yi xam-xam bi ñu bi nga xam ne yàlla dénk nañu ko mu tuuti mu mu mu rëy nan lañ koy jëriñee askan bi en priorité daaray kokki pàcc yi njëkk a euh, ràññee yi njëkk a déterminé mooy pàccu santé euh, ak pàccu agronomie yeneen pàcc yu bari dinañ ci fekk si moom mooy comme ay énergie solaire ak informatique ak enseignement de façon générale pàcc yu bëri yu yaatu génn na ci waxtaan bi yoo xam ni tamit Ah, dañ suñ signé convention bi yooyu yëpp dinañ ci taxaw incha allah. day doon formation ak service ak nu mu gën a yaatoo rek mais ñun comme ay enseignants lañ université dañu am euh, rôle enseignement ci enseignement bi dinañ ci dox muy formation diplômante wala formation continue mais aussi ak wàllu prestation de service justement service à la communauté en priorité ndongo daara yi mais population bi yëpp bu kokki ak li ko wër. wu accueil bi vraiment dana waar ñu ngi sant bu baax a baax bernel lañu. dalal nañu yaatal nañu wan nañu xam-xam vraiment kontaan nañ trop trop trop trop ñu ngi ñaan yàlla mu mottali mbébét yi. pour wan la njëriñ bi balaa balaa ñu fiy jógee rek kenn si délégation bi mooy médecin la mu ngi consulter nii à côté ñu ngi koy wan ay yenn jàngoro mu ngi leen koy faj ci vraiment ak xol bu sedd guy loolu mooy collaboration bi commencé na. te xëy na balaa ñuy signé convention bi sax dinañ tàmbali ndànk-ndànk ba kare ñu koy structuré incha allah. حقا على المتقين yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran